bokk na nag ci bunti wax lu amul yu leer nañ yi mooy lii xew ci jamono ñi di ko tuddee poisson d'avril nga xam ne dañ ne daal weer wi ñu tuddee avril bu xasee teew day mel ne borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo araamaloon fen ci alquranam araamal ko ci làmmiñu yonentam day mel ni moo wax jullit yi ne leen li ma araamaloon léegi daganal naa ko bu leen neexee mën ngeen a fen ba ba weer wi jàll loolu lay nuru kooku ci musiba yi nga xam ne dafa tàbbi ci jullit yi jóge ci civilisation yeneeni xeet yoo xam ne ak ceddo la ñuy dund mu walangaan ba agsi ci nun jullit yi jaawale civilisation ak ugu réer tax ñu jël ko di ko jima dund loolu moo tax nga mën a dem ba gis magum jëm moo xam ne ku ñu war a ormaal la ku war a nekk royukaay la ci wàllu jikko ak ci wàllu mbaax du jigum dara kàmm mu mën a fen fen wax ne ñëpp a koy déggandoo benn yoon te du ca am kersa du ca am itam lu mu yulus léeg-léeg sax fen wa du ko def ci bërëb boo xam ne fu làqu lay doon waaye day dem ba ci média yi dem ba àgg ci rajo yi rajo yi àgg ci télévision yi àgg ci journaux yi ñi di ko bind nit ñi di ko jàng mu doon ay fen ba noppi ñi di ko tuddee weneenu tuub kooku musiba la dégg ngeen li xew ci àjjuma ji xew di weesu bis ne que tey mag mu taxaw ci rajo fen aw fen ne am na ku nekk bërëb sàngam di séddale xaalis mbooloo mépp soxla nañ ku leen dimbali ñu ñu ñu jógee fañ nekkoon dikk dajaloo fu béréb ba ñuy jël taxe jóge ci béréb yi sore sori ngir bëgg am ci la ñu séddale dajaloo ko gisuñu dara mu door a wàcc ne leen loolu poinçon euh, nga ne loolu bu melokaanu jullit dégg ngeen ajuma ji weesu keneen koo xam ne dafa wax ne euh, waa jeen ki doon tudd ci gannaaw ngóor sa euh, cheikhu sëriku ñu ne mooy jiite ajuma ci grande mosquée ci Dakar ay mbooloo yu bare bare di ne ci jëm foofa la dañuy seeti dem gisuñu dara ñu leen poisson waaw ndax loolu dadul ay fen ndax ñooñu xalaat nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ne xale bi boo ne ko kaame jox la te joxoo ko bindal nañ la benn fen ci sa téere ndax xalaatoon nañ ci loolu bi ñuy wax loolu kon ma ne jullit yi buñ yàq seen fitra bind bi leen yàlla bind ci mbaax ak ci njub nañ leen bàyyi noonu ñu sell buñ leen ko yàqal ci yeneen civilisation wala ay ay ay xeeti jikkoy ceddo sax lay wax duma wax civilisation ndax fen moom civilisation kenn buñ leen yàqal seen melokaan yi leen lislaam indi seen jub gi mu leen jox xam nga ne sell googu ak laab googu moo waral nit ñi dégg ñu wax leen wax ju mel noonu ñu jàll leen jël ay dem parce que jàpp nañu jullit war defen kon ba tey jullit ñu bari ci ñoom ña nga nekk fañ nekkoon dañ leen bàyyi noonu bu leen yàq buñ jii ma soppi seen xel yi bu ñuy jii ma soppi seen jikko yi seen baax li lislaam def ci ñoom nañ ko ci bàyyi yu mel noonu yu mat a bàyyee xel la euh, <coughs> kon daal war nañoo xam ne lislaam daf noo digal nu doon ay nit ñu dëggu ci suñuy wax ak jëf jullit bu ne nag nit ku ne sax laay wax moo gën a xam boppam kenn ku ne na vérifié boppam xool gis lam gis ci biiram mu wóor ko ne lii ay dëgg-dëgg la ay caaxaan la wala ay njuuj njaaj la ba mu nax boppam na ko jiima raxas ba mu set wecc néewuñu ñëpp nañ jekki-jekki baax cent pour cent waaye nit ki day jiima góorgóorlu na jiima yar boppam su fekkee yar bi faatoon na ko ba mu nekkee gone ba mu nekk mag na jiima yar boppam na jiima jubbandiku na jiima jaar siraatul mustaqim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne waxal dëgg doonte sax dëgg gi bu ñëwee day dal ci sa kaw allahuma ayqis qulubana min algafalat wa tahir jawarixana min almaasi walsayiat wa naqi sarairana min alshururi walbaliyat allahuma baacid baynana wa bayna dunubina kama baacadta bayna almashriqi walmaghrib wa naqina min xataayaana kama yunaqqa thawbu al-abyadu min ad-danas واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم اختم بصالحات أعمالنا وثبتنا على صراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا اللهم آمنا في أوطاننا